asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum surtout ndawu Sénégal Sénégal réew la moo xam ni réew ay ndaw la ñepp ci réew mi tay fukki at ak juróom ñet la ñu 18 ans la ñam. Ba 18 ans yoy nak ñom dañu war a top toppatoo bu baax réew mi ni muy doxee ngir mëna paré sen seen ndax ëllëg tay lañ koy paré. dañu wara paré dañu wara bok ci si mi ni muy doxee ren dafa am ay élection le 30 juillet 2017.

boo xam ne li ko tax a jóg mooy ñu bokk ci réew mi sunu constitution daf ñu may depuis référendum bii ñu def ne léegi bu élection jotee su mu soob mun nga ñëw samp sa ndënd ne da nga siy bokk looloo tax ñun bokkuñu ci benn parti politique ñu sanc defar Sénégal man mii Mamadou Sy Tounkara maa ko jiite ngir élection député yi di am 30 juillet ñu bokk ci teg liste boo xam ni ay député indépendant ñoo xam ne bokkuñu ci benn parti politique ngir dëgg-dëgg ñu amal askan wi njariñ waaye bañ toog rek di ràcc jëmale seen boor mun nag defar Sénégal moom bëgg ñëpp jàpp si ñëpp dugal ci seen loxo ci lu yomb nag mooy na ñëpp bindu ci carte d'identité yu bees yi waajal 30 juillet 2017 élection député yi voteel waa defar Sénégal ngir politiciens yi nga xam ne boobu ba léegi ñoom ñoo fi ne newal fi seen bopp ñu fexe daal ñoom ñu abal ñu